ko jërul naa diwum diw boo tuddee jëf ya lépp leer ma tudd fi tey koo xam ni mbooloo mi xam na ko jërul naa diwum diw boo tuddee jëf ya lépp leer nde jëf na fi jëf yoo xam ni booy làmb dal di njegam yow dangay xoolet nga gis jëf ya lépp leer mu feeña fa njëreem bal sa sin diine dal di yépp booloo bég ni buy màgg lépp leer keroog ba mu feeñee bamba wax waxam yu rëy ne am na ci moom yaakaar ba yaakaar mujj leer keroog bamba daa bég mu yéemu sedd xol te daal di bégal ngir gam gi ñëw dew bu leer te daal di bégal ngir ngam gi ñëw te leer mu jël fi si mag ñu jàng ko ñépp bég mu naa daraja yi saala wàccaale lépp leer mu wax fa yeneen wax yuy xajul sax ci ay kayit dañuy mujj lam yooyee te wax leen yeneen yu leer jërul sax naa diw moo ko jàngal ca dëkk bee ndewaykat ya jëkkoon loolu wax nañ ca wax ju leer te sañcoon na ay daaraa ki dëkkam yu ñépp xam damay tënk moo tax boobu lim naa ko dal di wéer dama nar a gàttal wax ji ngir wax ju am njariñ dafay gàtt boo koy dégg xam ko bu leer a leer te nit ñi dañoo yàkkamti booy wax lu yàgg sax dañoo tàyyi dootuñ diglu booy wax na wér te leer te nit ñi dañoo yàkkamti booy wax lu yàgg sax dañoo tàyyi dootuñ diglu booy wax na wér te leer te wax bu guddee day tax ñu fàtte la jiitu woon te duñ diglu lay toppaat te wax ja lu leer te wax ji ma koy wax sopp naa ñépp diglu ko ma fàttali leen tey aw meloo ma jëfam leer li gën nag ci kuy waxtaan nga xool ko te diglu ko te bul doose ndax day tax waxam doo tax ngam lu leer te wax naa la ak feeñam ci duniyaa lu rëy la xew te wax la mbégum Seex Bàmba ak mag ña teew bu leer gannaaw ba mu jóg dem jàngi téere bu màgg bii ba mokkal ko nag dem jàng xam-xam bu leer a leer mu nekk ci ron Seex Bàmba tey wéy ci ay waxam di roy ciy jëfam moo tax mbiram yépp dal di leer ba Seex Bamba la ko wam sa sin ñépp far jëlëm mu toppi magam Seex Mustapha lépp daal di leer ba Seex Bamba la ko wam sa sin ñépp far jëlëm mu toppi magam Seex Mustapha lépp daal leer ñu déggoo juboo tey ànd lu wax mu daal di ba bay tool bi mbay moo xam ni àll bi lépp leer jumaa ji borom Tuuba digal nit ñi door dem mu ànd ci ak Seex Mustapha luy def leer mu ñotti firaay bi daldi woo nit ñi dénk leen aw ngirum jub moo ma doy mooy li wér te leer ba Cheikh Moustapha ko ca dassa si mbir ma jóg ni Cheikh Fallu jiitul maa ngi topp ci yow bu leer Sëriñ Fallu àggal naa wi julli ko ñépp bét mu ñotti courant yi fépp booloo ne leer mu nekk ndawal Cheikh Fallu réew mépp xam na ko mu doon ndaw lu mat ndaw kii mbiram yépp leer ba seex fallu laqoo mbër ma ñëw toog ca jal ba nag xanaa léegi ngeen xam waa ji may waxtele mu leer ba seex fallu laqoo mbër ma ñëw toog ca jal nag xanaa léegi ngeen xam waa ji may waxtele mu leer mu door ab liggéeyam diglu leen gaa maa ngi ñëw biral leen mbirum waa ji ma doon junj lépp leer mu def papillon boo xam yéemeem nga na xel mu war xabru bii lii moo di door teel liggéey bu leer mu miire jumaa ji miir bu yéeme bu ñépp naw mu mar ba ko dolli lamp biir gépp bokku leer mu def bibliothèque boo xam ni téeréem ya fees na ko xasi i daaka dii sa kalxuraanam du leer leer mu noppi ca loolee daal di songaat këram bu rëy defal ko sëriñ Tuuba ku ak moom ko moom gu leer ini wir si def Seex Bamba yaa doom nga na xel te moom moo ko def xam ngeen ki may wax te mu leer mu bari yeesalaat ay noom ya ridan wa rahmatan ku del naan ca boo man de sa mbir yëpp daal di leer defar hôpital koo xam ni yaa doom nga na xel te bopp te kat bopp santé bopp leetal yi lépp leer dafa ko doon wut boo xam ni mbaagante yomb na mu far wala lépp corniche dem ak dikk daal di leer mu yokkal nu tuubaa penku ak soow fépp bëri wetu sëlu mag gànnaar ga yokkin wu leer a leer mu yokkal nu tuubaa penku ak soow fépp bëri wetu sëlu mag ga yokkin wu mu yokkaat jumaa ji muy rawanteeg ju màgg ja ke def lii jërul wax wa jëf yee ko wax bu leer danaa wax turam ndax bàmbalee waaju man turam di Abdul Ahad booy dem saal jana dal leer te de abdu mi moo tax murit yi mu mel ni gar bu jóg ñu ni ndax kii kuura ngir daw dox mu leer te waaju am xel boole ko fit te xel mu rëy mu ànd ko fit yombul di boole lépp leer ndexel mu rëyay tax nit xalaat sax ba far ragal ku am xel du tëb def mbir te topp ko lépp leer te aw fi wu day tax nga jóg dal di soobu mbir te doo gëstu door jaatab lii ku doxin wu leer te waa jii ma lay wax boole yaar yi ma wax bu wér danaa wax fi tam ngee xel ni lim jëf ba lépp leer xelam naa waral buy jëf balaa bés ba ñépp yëg mu jiital ca ab diisoo ki bokkam ba lépp leer xelam maa waral buy jëf ñaxam loola xam gu wér mu jox leen liggéey boobee buy noppi lépp leer xelam maa waral mboolem lu yëngu ci mi leer mu wax cay xalaatam jox ko nguur gi mu dal di leer xelam maa waral waa nguur gi duñ jëf ba jëf-jëfes te di kuñ ci moom tàggoo mu wax leen lu leer a xelam maa waral mbooleem julit ñii ci réew mi tey ñu toppanti moom tey déglu lim leen di wax bu leer te lim am ci xel xel sax dajul wax ko ci këyit te noon ñii ko wax sum xel deful xel mu leer a leer mu ñëw nag te wax leen fit wa noonu leen ci xam bu wér te wax leen ci as lëf noo ngi ñaan yàlla lépp leer fitam waa waral ci ndaw la ber daara ber bu wér te boole mag ak aw ndaw di leen yar yari lu mu leer fitam waa waral seex bamba làqu mu daal jóg te njiital magam seex mustapha jiitalin wu leer fitam waa waral seex bamba moom lam ca doon ne mu jël lépp jébbal mag ja seex mustapha bu leer fitam waa waral mboolem lu seex bamba aaya woon ba muy toog ci bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala noo ngi leen di nuyoo bu baax te di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mouhamadunil Mountakha sunu boroom yàggal ko fi te defal ko ak wér ba mu mottali yéeneem ak ay naalam ci lëggal xaadimu rasul di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp ak taalibe yi waaye noonu it la ñu koy ñaanale si di Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdoul Ahad sunu borom yàggal ko fi te defal ko ak wér mu mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Ahad gi yëpp di nuyu bu baax tey ziare itam tey ñaanal kilifa ak bi ñu nekk muy Serigne Cheikh Abi sunu boroom yàggal ko fi lool te defal ko ak wér ba mu mottali yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal maamam xaadimu rasul waaye di nuyu jëmm ju màgg ju tedd ji nga xam ne mooy soxna su tedd si nekk ci sunu ginnaaw di soxna njaxat mbàkke moom si Abdou Lahad radiyallahu taala anhu nga xam ne fii lañu nekk tey jii ci ëttam moom soxna njaxat mbàkke ci bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy fàttaliku ak di ci ñaanal way juróom wu tedd woowu nga xam ne moo di Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy jàmbaari lislaam di jàmbaari yoonu morit waaye di jàmbaari Sénégal di jàmbaari Afrique waaye di jàmbaari continent bi waaye di jàmbaari àdduna bi yëpp doonoon itam gaynde goo xam ne liggéeyal na Serigne Touba liggéey boo xam ne jafe na lool nga gis ku mën a liggéeyal Serigne liggéey boobu rawatina ci jamono ji nga xam ne ca la liggéeyale Serigne Touba liggéey boobu moom Cheikh Abdoul nag jëmm la joo xam ne euh, bi mu feeñee jamono ci njaareem 1914 wax ja ca Serigne Touba wax rek war naa wane lu leer ak lu rëy ak lu weer ci ak njàmbaaram muy kàddu gi Serigne Touba wax bi Cheikh Abdoul feeñee jamono muy gan gi ñëw tey di dama am ci moom yaakaar te xam nga ne Cheikh Abdoul <coughs> bi mu waree feeñ jamono. yenn saay ku baax ki daana tàngal lu warga wala mu tàngal lu meew ay jëmm defal ko ko waaye yii saa itam nag daana ko defal boppam ca loxo bu la boobee waaye bi Cheikh Abdoul Ahad waree feeñ jamono mag ñi nee nañ gis nañ ne keroog luy warga luy meew luy kafe Cheikhul Khadim ko tàngal ci loxo boppam bu mu ko tàngalee itam mooy jóg di wër mbooloo mi di leen sir di leen jox kaas yi kenn ku ci nekk moo lay jox di ca boole nag ay waat ay baat baat yoo xam ne sëñ Tuubaa ngi ko ciy teg di séddale baat yi mooy bi ma nekkee ci géej gi day sun boroom dama diggan jenn jàmbaar jàmbaar joo xam ne moo war a feeñ ci sama njaboot te suñ boroom xamal na ma ne ma tey jii la war a feeñ muy altine ñenn ñi ne talaata gi Cheikh Abdou Lahad jamono nga xam ne noonu la ko sëñ Tuubaa doon teeroo bi mu feeñee jamono itam sëñ Tuubaa tudde ko tur woo xam ne Cheikh Abdou Lahad ko njëkk tudd ci kaw suuf muy Abdul Ahadi Abdul Ahadi mboolem gëstukat yi ak boroom téere yi ak jàngkat yi gis na ne lu jiitu si Abdou Lahad tur wi amutoon kenn mësu koo tudd Cheikh Abdou Lahad ko njëkk a tudd képp ku ko tuddaat ku nekk rek ginnaaw Cheikh Abdou Lahad nga ko tudd benn ñu tudde la ko wala nga di ko rey Serigne Touba ne dama am ci moom yaakaar muy lu rëy nga xam ne baatub damaa am ci moom yaakaar googu ju sëñ Touba Cheikh Abdou Lahad ñu ko sëñ Tuuba jëme ci ñoom bu dul yàlla ak yonent bi bëriwul nga teg ci bët Cheikh Abdou sëñ Tuuba defal ko loolu mu teel a doon koo xam ne nag ku sëriñ Tuuba dimbali la waaye ku sëriñ Tuuba liggéey loo la <coughs> fi ne da nga gis ñu bari am nañ pas-pas ak yéene liggéeyal sëñ Tuuba waaye ndax sëñ Tuuba liggéey loo na leen sëriñ Saliou bu nit ñëwaa ci moom di ko ñaan alal jum liggéey la sëñ Tuuba wala dara sëñ Saliou danaa ko yow ñaanal mu liggéey loola rek comme liggéeyloo ku ne dana la jox ay jumtuwaay Cheikh Abdou Lahad nag sëñ Tuubaa da koo liggéeyloo moo tax sëñ Tuubaa jox ko jumtuwaay yi bokk na ci jumtuwaay yooyu ko sëñ Tuubaa jox ci jamono ji mu nekkoon moom Cheikh Abdou mën a def ay injaazaat muy ay réalisation yi nga xam ne réalisé na ko moom Cheikh Abdou jamono ji nga xam ne moom la tolloon ba pare réussite ko nag bokk na ci loolu muy dëkk bu sell bii ñu nekk muy Touba mu fexe ba lépp loo xamante ne jii neexul yàlla neexul yonente bi neexul sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ne nañ ko fi jëlee nga xam ne raxas dëkk bi ba mu set ca la sëñ Touba ñaanoon boroomam ne ko waxal li nii waxal li yan niya min arradaili wa kun mu jammi liya bil fadaili yow yàlla na nga ma setal ci mbooleem loo xam ne mën nañ cee jam nit mu koy gàkkal wala mu koy tilimal wala mu koy taasal waaye boo paree nag na ma taqal nanga ma takkal caq boo xam ne mbooleem ngëneeli xemmemteef yépp day daje ca caq boobee Chablaat nag taxaw temm sukkandiku ci bayit woowu ngir bëgg dindil sëñ Touba luy nurub gàkk ak luy nurub taas ci dëkk bu sell bii di Touba. nga xam ne fexe ba dëkk bii di Touba ba muy def declaration moo defal boppam declaration këyit wa nga xamante ne itam moom la jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi moo jëkk a ca suuf Amadou Ahadi yónnee sëñ Abdou Khadir signé sëñ Chouaïbou signé sëñ Mourtala signé mbooleem doomi sëñ Touba yépp signé. ñu fas yéene taxaw nag moom Cheikh Abdou Lahad lépp loo xam ne nekk na ci dëkk bi ci loo xamante ne ji neexut yàlla neexut yonente bi neexut Serigne Touba ñu dindi ko fi mu daal di def déclaration nag ci làmmeñu boppam woo xam ne waxloowut kenn moo waxal boppam ci dëkk bi bu fi kenn tëgg bu fi kenn carte bu fi kenn tux wax mboolem ya muy tere ba yëpp ba mu daj dana képp koo xam ne nag jàpp nga ne war nga ko fee mën a jëfate ak ku man di doon bismillah nay tey la cay jógee nag di ci juddoo du dakk tey tàmbali nag nga xam ne tey jii Touba nga mën a wër xibla yëpp ba mu daj doo daje kenn koo xam ne ni gàddu na ab sikara di tux ci Sénégal Touba képp bay dëkk boo xam ne mën nga wër mbedd yi di buub di bale doo gis mégub cigarette doo gis bépp barab boo xam ne dañ fay jaay lenn loo xam ne lu ñuy tere la doo gis ab baar doo gis dara loo xam ne daa juyoo ak charia xam nga ne li lay won ne Sëñ Abdou Lahad moo ñongal liggéeyam Sëñ tubaab bi Makka ga nga xam ne nii sax tey jii fa la yonent bi feeña jamono tey boo demee Mouhamad Salman ma fa ne fi jamono jii may wax ak yéen autorisé na ay barab yoo xam ne dañ fay jaay sàngara fi mu ne nii am na ca màkk nga xam ne fi ne mënees na ko faa def te dara du la ca fekk waaye Touba nag mooy dëkk boo xam ne moom ngay wër ba mu daj boo fi ñëwee sax te indiwoo fi yàlla akub yonentam ak sëñ Touba dëkk bi lay xat ci yow doo fi mën a dund loolu Cheikh Abdou Lahad liggéeyal ko sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba nag ci taalibeem yi liggéeyal sëñ Touba ci yoon wi téye ko ba kenn amut foo xamante ne ji jaar nga fa sëñ kenn amut foo xam ne mën nga faa jaar yoon wi kenn amut foo xam ne man nga faa jaar benn taalibe bi sëñ liggéey yoon wi ci liggéey ba gën a jafe nag ba nga xam ne fii yoon wi toll képp ku ñëwati nekk fi xalifaab sëñ Tuubaa liggéey bi day yomb ci yow ngir guerre yi nga ëkk yi nga xam ne moo gën a jafe Cheikh Abdou déjjati na ko xur yi nga xam ne moo gën a naqare maasale Cheikh Abdou Lahad maasale na ko tund yi nga xam ne moo gën a naqare mokkal Cheikh mokkal na ko nga xam ne képp ku ñëwati di xalifaab sëñ Tuubaa xool jamonoy actualité ja nga nekk lu gën a dëppook moom nga ànd ak loola di dox waaye li gën a na jafe moom Cheikh Abdoul Ahad liggéeyal na ko Sëñ Tuubaa te réussite na ko réussite boo xam ne itam kenn mësu koo gis doon koo xam ne itam bi mu toggee ci yoon wi itam xamal na taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp moom lim lim lim fi nekkee tàmbale ko nag ci ñi nga xamante ni ji itam ñooy yi adduna yi ñu di leen wax président de la république yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi kenn ku ci nekk itam mu xamal la ne la Touba moom ak murid ya mbooloo lañ moo xam ne mën nañoo maslaa ku ne waaye sëñ tubaat doo nga leen moom sëñ Touba doo nga leen di tënk nga xam ne loolu mu liggéeyal ci sëriñ bi liggéey ba am solo kon yaakaar naa foofu des na fi mën a taxaw ndax xataay bi ak ñi nga xam ne bokk yi nga xam ne dañuy bëgg a euh, soxna si yëpp xam naa ne li ci des buñ demee ci kaw incha allah dinañ ci gën a def waxtaan wu gën a yaatu ñu ngi leen di siyaar bu baax nag xam ngeen nañuy fàttali ne ñi ngi woon ci ëttub soxna Njaxat Mbakke moom Cheikh Abdou Lahad moom itam muy taxaw màggal gi fii ci kër Serigne Cheikh Abi ñu di ko ñaanal bu baax nag mbakke sunu borom yàggal ko fi lool te defal la wér ci barke sa wayjur wu tedd ba Cheikh Abdou guddal fan wi bàyyi la ci kanam njaboot gi ba mboolem li nga yéenee liggéeyal sa maam Sëñ Touba yéeni koo liggéeyal sa wayjur wa Cheikh nga defe ko ni nga ko bëggee ci barke Xaadimu Rasuul ñu ngi leen nuyu di leen ziar ngeen ko doon ànd ak seen mbokkum taalibe mbay Mbàkke ñan ñu di leen jox jig daje ci yeneen di jataay incha allah wasalaamualeykum wa fitam waa waral bam ne bërit dal la daaneel ña doon def loola jënd bu leer a fitam waa waral bam ne bërit dal la daaneel ña doon def loola jënd bu leer a fitam waa waral moom mii toj rajax rajax okaas kii fi Touba def ko pàkk bu leer a leer fitam waa waral moom mii mu xëy woolu góor nguur gi far ñu andi fi ay sàndarma jox leen di gël lu leer ñu jox leen di gël lu leer fitam waa waral bam ne taxaw naa ci dëkk bii ku def jëf ju juuyoog yoon wi am yar yu leer leer fitam waa waral moom mii mu xëy woolu koy murit mu laaj milliard ak genn wàll te lépp a leer te man lottu naa wax leen fi tam woowa lam ca def xajul ci kayit dul wax ba wax ca wax ju leer ku xam nag lu wuuteeg lii te déggul te déggul ma wax ko tey ku xam nag lu wuuteeg lii te déggul ma wax ko tey na xam ne xel day fattu bay jël la yu leer ku am fulla boole fayda ak tabe ak woyof te del këng nooy nag nepp yor nag jëmmam ju leer ku ñàkkoon la ay caaxaan te lii mooy li ñépp xam ñeme dëgg tey ànd ak ñu koy wax lu leer leer ku jóg wuti seexatul aat danga ko waaj bu wér te waajal la ngay wax loor ba wax jooja wér te leer ku yor nag pexeet ay woor ba waaxu wa jëm ci moom sabit wadu daal ndax moom bu lay tontu lépp leer dangay sañse boo àggee nga fekk musoonu far ca suuf di waxtaan sol yëréen nag yu foor foor te fit nag wu ànd ak xel la nit ñépp soxla woo da koo boole moo tax ab liggéeyam rafet te leer fitam waa xelam maa tax bi armeel yi nee tërës mu sàkkaat yeneen armeel yi yaatu te leer a leer fitam waa xelam maa tax bi tuubaa di ñàkk ndox mu bënn fi ay fooraas yu lay ndox mi dal di leer fitam waa xelam maa tax mu xëy yeesalaat ko gaas. sa waay du ñëwaayu keneen لنا قال سما دغت سوايد نيوايك أكلا سوايد قد بدم لنا دسول قد بدم لنا سبينا لنا قبلك سبي سما دغت نومي تغو قشتنا جملة لا وجلت كنا ومن جب يبالنا جل سبتنا كسو كسو ما دغت نومي تغو قشتنا fitam waa xelam maa tax mu xëy yeesa la okaas te aaya fa ay ñaawteef ndigal leen digal yu leer fitam waa xelam maa tax mu aaya fi jëf yu ñaaw lu mel nekki naan ak toog ba dëkk bi lépp a leer fitam waa xelam maa tax ku bàmba di way juram mu feeñal la def la jant foo féete lépp leer fitam waa xelam maa tax ci réew mi yeneeni réew sëriñ bamba am fay kër te ñan koy dundal bu leer fitam waa xelam maa tax bu laa woote ab liggéey dafay fakku door koo woote buy noppi lépp leer fitam waa xelam maa tax courant bi mu dolli ko mu jàll ba baxdaat ak yeneen dëkk yépp leer fitam waa xelam maa tax bu daa teeru ay ganam dafay xir ci ay beer ndeem ba gan ñooña dépp leer ndabal raxasoom mooy jëkka daaneel ganam bu wér ndebaani ndoxam lay taa nga yoon yaxuudu ulooman xay bi rabbi muallimi ilaa balkani faydan iril am لمن به توالي في عدا من بها يهنى خاتما أهنا هديات ربي خادتي أجر والرداء إلينا كما قد طيب الزمر والمهنان وأيت علوما بهاد بلفظ كن ولغاد ربي خير سيد أن الحسنى بخحر مسلمة خبرا حموحسة فردا خريبا وحيدا تحت أحجاري أمسيت ضيفك يا سلجود مرتحنا وأنت أكرم منصور بخاري واجعل خراحي منك نيل مغفرة أنجو لديك بها يا خير قبائل yaa xayra waali ajib duaai salli wa sallim ala almukallim wa doori aasim wa duyaai waajuru tedd wa si Abdoulahat Mbàkke moo ëpp personnalité ku yàlla bind ci jamono keroog ba ko Senghor ñëwee di ko jaale Sëñ Fàllu dañu ko lebal nga ma bor boo xam ne du ma la ko fay mukk ci àddina Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bari personnalité keroog dañu Senghor lebal nga ma bor boo xam ni du ma la ko fay mukk ci àddina ndax yow man nga maa jaale si waaye sama diina mayu ma man ma jaale si la Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad mooy ki nga xam ni moo daan jàkkaarloog président de la république gouvernement bi yëpp toog mu nuyoonteeg ñoom une minute waxak ak murid yi une heure de temps Cheikh moom day wax ak gouvernement bi une minute wax ak murid yi waxtu moom Cheikh Abdoul Ahad te bu wax ak ñoom une minute ba noppi danaan li may leen wax ak sama mbokk yi ma bokkal Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul seeb lahat mbàkke amut moroom de seeb la taqdimahu jamula waxtasahu llahu bi fadli la si kamula seeb lay jaxate ko way na ko mbooleem koo maaseel jamono yow seeb laat sa morom nekkul ci jamono jamono ci seeb laat jamono jamono seeb laat ne ko mel ni seeb laat amul ci jamono daaree kaamil bii nga xam ne tey fa la tëdd moom seeb laat deux cent trente cinq millions la ko liggéeyee deux cent trente cinq millions la ko seeb laat mbàkke liggéeyee waññeekuwaat moom seeb laat jël téeméeri millions jox ko sëñ Maodo si mu alaaji Abdou Aziz da baax ak ku di wax sëñ Moustapha Cissé bu pire ñoom ñaar la boole jox leen cent million ne leen dem leen Arabie Saoudi dem leen Kuwait mbooleem lu fay téere xam-xam bu nit di jógee Sénégal di ko jàngi foofu eh nan ma ko indi si daare kaamil ba lu waay digg Saoudi doo génn Touba te xam lépp Cheikh Laat Mbàkke ko def Cheikh Laat ta ko jëf de Cheikh Laat Mbàkke moomee moo xëy bis moom Cheikh Laat génn génn di xool mbedd tubaay ba ci yàgg daan ni ab dëkk lu ko nit mën a moomee te amu ci kër Cheikh moo ne woon ab dëkk lu ko borom mën a moomee te amu ci kër Cheikh Laat keroog ba ko sëñ Moustapha Bassirou déggee sëñ Moustapha Bassirou ñëw ba ci Cheikh Laat ni ko sëñ kër gi mu fa war a am bu ko sëñ Bassirou Mbacke fekke woon nga soxla ko mu jox la ko tey maa fi sëñ Bassirou jox naa la addee sëñ Touba muy résidence Xaadim Rasul bii muy kër mag moom gi Cheikh Laat Mbacke def kër sëriñ Bassirou la woon sëñ Moustapha Bassirou ko jox Cheikh Laat addee sëriñ tubaa Mbàkke baal la sa bisu waajuru tedd wi sama turandoo Cheikh Abdou Lahad Mbàkke Cheikh Abdou ndax maa ngi doog ko gisante yow ci saayir tey la ko yàlla dogal man Tiwaawan laa dëkk dëkk faak sa rakk ju baax ja soxna maam Jaara Mbàkke ak sëñ Bamba di njabootu Baay Góor Mbay ga xam ni ñoom moom la waajuram wu jigéen amal te Cheikh laat ñu dëkk ak ñoom ca Tiwaawan kóllëre googu moom la ñuy féddali sama waajuru góor ma juddu judd bisu màggal Touba 1986 laa judd bisu màggal Touba 1986 laa judd bis ba dellusi sama papa ni ma Sèye Blatt moom tur yi tuddee naa la Abdou kon nag kóllëre googu ñu koy fasante yu Mbàkke xam ni kat sëñ Abdou Lahad bu dellusiwaatoon doo sopp sa toogaay ndax Mohamed Niang kat réew mi ñëpp xam nañ ko su ma deewoon teg moom mu ne ma ki ngay siyaar murid saadix la ma sëkk li nga doon a tax te biñ toogee ba tey ñiy jàng xasida foo leen gis ñi dikk di toog ci këru sëriñ keppaaru fa wax kan kat yi toog ci sa keppaar. sëriñ ba bëgg xasida yi ak bëgg sëñ tubaa kon bëgg xasida yi ak bëgg sëñ tubaa moo tax mbokk taalib yëpp bëgg la kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal nga gudd fan